ñu ngi am mbégte dalal tey euh, monsieur Thierno Lo muy euh, président APD nekk itam PCA bu SENTER euh, ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM. Fatou maa ngi lay nuyu bu baax di la balu ak aussi ci weeru koor bi ñu génn te di ñaan yàlla suñu borom nangu suñu koor. defal ñu jàmm may ñu wér gu yaram fan gudd ca sàmmal ñu suñu Sénégal gi nga xam ne ñun ñoo ko bokk. amiin ñu tàmbalee ak euh, actualité mun naa wax ni actualité la muy euh, TER bi nga xam ne am na téeméeri fan euh, ci ay bés bi ñu génn alors téeméeri fan yooyu nag dafa yëkkatiwaat beneen débat muy rentabilité wu TER lan la TER di jural Sénégal ndax xaalis bu bari lañu ci def kon ñu ngi xaar itam retour sur investissement mu juraat xaalis ministre Mansour fay def na bilan wu 100 jours yi wax ni ñetti milliards milliards jóge na ci ak juróomi million nit yoo xam ne yéeg nañu ci teer bi alors yow loo mun a wax nit ñi tey ci li teer di jur ndaxte débat bi jugaat na ci euh, ku mel ni économiste bi di euh, Khadim Bamba Diagne wax ni teer bi kon nañu doon séentoo noonee la amee du rentable maanaam li muy jural réew mi daal euh, bariwut loolu ñuy tontu ci loolu. gis naa coow boobu depuis démb xaw ñu ñu di ci wax. di wax ay affaire sortie bu xaadim def ak def ay calcul de rentabilité ay affaire gars yi di ko def man xaadim euh, euh, économiste la boo xam bi respecté naa ko alors euh, du ma def benn polémique ak moom Mansour Faye c'est le ministre des transport moom itam il a le droit de le devoir de venir ci li xane xam ne moom lañ ko dénk mais li ma doon demande man daal li ma concerné ci affaire boobu mooy que ne terre bi président de la république moo am xalaat bu rafet indi ay moyens jël ay nit dénk leen pour que ne ko nañ defal terre bi ba muy soog a tàmbali am na ñoo xam ne dañ doon wax ne terre bi du daw comme terre bi daw na bi mu commencé daw ñu inauguré ko ñëpp teg seen bët muy dem sénégalais yi nga xam ne bi leen ñoom ñoom moom terre bi parce que seen xaalis la ñoom ñooy toog di waxal ne la man day kontaan naa ñii di wax la man de président Macky Sall ku ko waxati dara danaa la tontu. ndaxte terre bii mu ma defal damay jóge sama kër gaare sama oto. ndékki ba pare gaare sama oto. dem ci dugg ci terre bi liggéey dootuma tardé ci bu dëkkoon du ma ndékkee sama kër ba pare damay tardé. léegi nag nit ki nga xam ne bi la moom moo ko daan def ne day gaare otoom ndékki ba pare dugg ci oto bi dem bureau am ca du tardé keneen ki ne sama scooter bii dama koo gaaree fële. dugg ci biir terre bi dem doxi sama soxla ba ma paree duggaat ñibbisi ga gis nga bu population yi di waxal seen bopp kon gouvernement bi seen xel dafa war a daal xam ne le projet il est rentable il est viable ca itam baax na ci nii ñi parce que nit ñi ñooy waxal seen bopp xam nga fi nii ñi benn nit dugg ci teer bi wax loolu kooku moom ma gën a placé que man may wax man Thierno Lo PCA terre bi ñi koy utiliser nañ leen bàyyi ñu waxal ñu comme ñu ngi ñuy waxal wax ju rafet ñi ngi dem ak di dellu nañ naan yàlla loolu gën a continuer ba ñu jël terre bi yóbbu ko ay AIBD jël ko fu yóbbu ko Mbour jël ko yóbbu ko Thiès fexe ba dugal ko ci biir Sénégal nit ñëpp ci loolu la ñu war a jéem jàpp pour que li am njariñ nañ fexe ba mu tas ba àgg fépp quant à maintenant ay calcul yi man de ah man de gestionnaire la xam naa ni xam naa tuuti ci économie aussi mais projet bi bu ñu ko defee man bala maa mën a protéger cër wax ci rentabilité dañ may génneel un premier bilan. mais loo xam ne lii bilan bi génnagul. ñu ngi nekk ci première année yi nga xam ne bi ci la ñuy def exploitation bi. loolu man Fatou wax dëgg yàlla ak yonent bi duma mën a perdre sama temps di extrapoler parce que fii ne nii lii ñëpp li ñu fi defoon yëpp ay prévisionnel la. prévisionnel la bu bilan bi génnee bilan bi moom mooy confirmer ba xam. terre bi na ou ah mais bu tant bu génnagul nag moom lu neex waay mën nga ko wax man nag moo tax du ma dugg ci genre détail yooyu. Mhm. léegi daal nañ soxee ba terre bi. Mhm. mu commencé dox. gar yi nga xam ne mi ngi koy transporter bëgg nañ leen a ñu nekk ay pôle économique. Mhm. kiosque yi di dox commerce yi di dox njaay mi di dox. rabattement bii dem oto yi nga xam ne bile ak moyens yi nga xam ñooy indi nit ñi pour ñàkk si ci terre bi. loolu dox ñu gën a continuer créer ay emploi commune yi muy traversé gën a dund. ñu gën a def fiscalité mu dugg ci keesu état bi seen terre bi nga xam ne bi moom lañ dénk patrimoine bi commencé doxal di def publicité am kiosque di dox train bi di daw muy yokkam ba bu ko defee bu gënee dox moo gën a créer ay emploi loolu daal mooy li nga xam ne bi man ci laay dox ci lay wax keneen du ma dévier ci leneen terre bi du teeru président Macky Sall moo am xalaat bi def ko fi mais sénégalais yi moo tax ñu def ko fi xaalu Sénégal yi lañ ko defee kon na Sénégalais yëpp fexe ba mu rentable ku ca am xalaat bu rafet ñëwal nga dem SENTER hmm. mbaa nga dem seet APIX nga dikk ne man kat am naa xalaat bii bu ngeen defee lii bu ngeen defal ne mu rafet ku ci nekk fertiliser li ñuy def hmm. je crois que moo gën mu mel ni ñun day am nit yoo xam dañ koy jéem a tiire ba train bi du daw train boobu kenn mënu koo teree daw kon nag nañ ci jàpp rek mu daw alors ci téeméeri fan yi mu daw amul benn gàllankoor maa xam côté technique wala yeneen i fànn yoo xam ne xëy na yu fi demee na ci nu ngeen ko séenoowul nga man euh, conducteur de conducteur de travaux ngay waxanteel ko j'ai l'habitude des chantiers et puis xam naa ni lu lépp lu nekk technique di daw mm. day am panne teer bi am na fi benn ba ñaari paan yu mu fi am fi yoo xam ni parce que teer bi lan la te autorail buy daw la mu ngi mel ne oto buy daw su waree paan dana paan bu paanee ñu defar ko mu continuer di daw. à part yooyu amul yeneen jafe-jafe. amul jafe-jafe parce que li ci des Sénégal yi nekk teer bi formé nañ leen ñu ngi def seen liggéey correctement. terre bi dafa am problème de sécurité parce que ñu koy dawal dañu am ay assurance ñu ko dawal dañu am seen responsabilité bu ñuy engagé ci terre bi donc mu ngi mel ni chauffeur boo dugal fii jox ko oto muy daw da koy da koy téye dawal ko ba du ci def affaire accident mm. am na yoo xam nii nag dépendrul ci chauffeur bi dépendrul dépendrul ci kiy dawal terre bi ay la mm. appareil buy daw nañ ñaan yàlla mu bañ am ay panne mais bu amee panne dañuy considérer que panne avion sax day panne mm-hmm. avion day panne oto di panne yëpp di panne kon terre bi kenn indiwu ko fi pour ne terre bi du panne man bokk ma ci loolu man. port bi man naa panne nañ fexe ba la koy panloo bu mu fi am. Hmm. nañ fexe ba ci yoon wi muy jaar di daw bu ko dara impacte hmm. waaw ñu jël ay toutes les précautions ba nga xam ne bi la terre bi du panne terre bi ñu ngi jëm nii ci affaire inondation yi. Hmm. nañ fexe ba inondation yi nga xam ne bi mi ngi daw ci biir Sénégal. ñu di ko xaar muy ñëw loo xam ni loo gis ne mi ngi ñëw war nga koo préparer ba mu dikkee du du dal ci say loxo mm-hmm. précaution yëpp na bu ñu koy Sénégal yi yëpp war a jëlee ay précaution ci loolu mm-hmm. bu kenn def lu yàq terre bi bu kenn def lu koy daraayaloo bu kenn def loo xam ne lii dina tax ba euh, yi ñuy mettre instruments yi ñu taxawal yëpp ci gaar yeeg affaire yooyu yëpp pour que nit ñi nekk à l'aise pour di ci dugg na ko ku ci nekk sàmmal boppam. waaw alors président Macky Sall jël dogalu defaat ci social euh, fukki fan ak euh, fukki fan weeru mai bi ñu dëgmal ni mu war ci seddale luy tolloo 43 milliards ay njaboot yoo xam ne dañu néew doole cash transfert jàpp nga ni loolu mooy yoon bu baax bi xëy na pour dimbali askan wi amul woon yeneen yu gënoon a xëy na mën a am njeexital. Sénégal yi dañoo war a bàyyi benn affaire ñu ni amoon na leen lu ko gën a ñor nga def football ñu ne amoon na leneen lu ko gën a ñor nga commencé def ay hôpitaux hôpitaux ñu ne am na leen lu ko gën a ñor gis réew moo xam ne da nga cee nekk boo xam ne bi lépp nga war a def baykat bi dafa war a jot jiw jiw footballkat bi dafa war am fu mu war a footballé ki nga xam ne day bëri dafa am fu war a bëri kii dawal oto dafa yoon yu ñu war a jaar ki nga war a faj dafa war a am dispensaire ki war a jàng dafa war a am lycée am ay école am ay siège kii kii ay taabal ak instrument ak yëpp pour pour pour mën a jàng léegi nag yooyu yëpp nga war koo def kon benn boo ci def nañ na alhamdulilah jàllal ci benn bi mu di ko def ba kañ lay mën a def lu magandoo benn yoon loolu dañ ko war a bàyyi yokk salaire aussi laa gis Sénégal nga yokkal par exemple benn magistrat enseignant ba daan ne damay grève parce que lu tax mu yokkal magistrat ba kii ne da xam bu ñu yokkalee magistrat da nga naan ñu yokkal enseignant nga ne alhamdulilah parce que le président de la république xamul tax ñu fal ko pour que mu rendre heureux les sénégalais pour que ku si nekk seen soxla seen dund seen nekkin mu yokk ko faj leen jàngal leen jox leen dara ñu def seen poche gis nga loolu moo tax ñu teg ko fii te waxuñu ko pour muy def ay bénéfice bu deflawuñu koy bénéfice na séddalee suñ xaalis def ko ci suñu njàng suñu faj suñu liggéey ak lépp loo xam rek ñu jox bien-être nañu ko président bi di defal man je préfère président buy jël xaalis bi di ko séddale nit ñi que président boo xam bii daf koy denc man nii laa fi nekkoon du temps du président Blaise te dama moom laay waxaat aussi du temps du président Macky Sall. gis nga ñi ñuy jël audience ñu ñëw ñu leen di jox xaalis nañ ko continuer loolu lu bien la parce que xaalis bi boo ko circulé denc ko. te man bëgg nga denc xaalis li askan wi mel jox ko ci askan wi parce que ku dugg audience nga jox ko 5 millions bu génnee bu demee koñam waa koñ bépp. da koy séddale da koy séddale loolu la ñuy tuddee argent ki circule. gis nga xaalis bi nañ ko séddale pour que muy circuler parce que du du ñëpp am liggéey du ñëppay jaay mu jar nit ñaa ngi toog xiif toog seen biir ka ca koñ boo fi jox ki nit. bu demee ca koñ ba nit ñëpp dañ ko sentir dana ci fay bor. Mm-hmm. dana ci maye dana ci leble dana ci sarxe. kon xaalis buy circuler man heure bu ko président bi defee man ca man en tout cas man sama opinion man daal bu ma sañoon ñu saag yi ñu ngi koy continuer di ko circuler waaw nit ñi léegi nag fibre sociale ay bourse familiale mais loolu dafa rafet mais boo demee bourse familiale ñu naan bourse familiale da nga koy def pour ko di ko politiser mais soo deful bourse familiale man ngaa téye xaalis bi xaalis ba élection bi jot comme fii nga xam ne bi la corruption rek la def ci élection bi élection ngay jënd achat de conscience di distribuer dafay mayoo jël ca làmb ja ak affaire ma ko soo kooku man jox ko borom kër yi néew di doole njaboot yi néew doole. Oh. alors njëgu dund gi yokk tamit euh, actualité la prix yi président Macky Sall mi ngi nekkoon ci yoon wàññi waaye euh, li xew Ukraine tamit ñëw ak ay jeexteelam est-ce que yaakaar nga ni tamit euh, yëf yi du gën a metti état mi ngi jéem a subventionné di jéem a woyofal yëf yi mais ndax capacité wu état wu Sénégal attan na tamit vague hausse di ñëw. ci en tout cas la République moom il faut que nit ñi félicité ko parce que man kooku c'est du parce que dama ak moom ah, parce que man su ma d'accord damay wax d'accord naa su ma d'accord damay wax d'accord moom def lu dama koy nangu président Macky Sall depuis bi mu ñëwee mi ngi def ay effort pour que prix yi bañ a grimper kenn mënu ko weddi mais bi mu waxee ne day weddi prix yi fekk na man mii ma jëloon sumay caméra jox ay gars ñu dem visiteel ma parce que man may wax rek ma am ci dara gars yi dem ci marché yi mais bi ñu demee dañoo gis ne gouvernement baa ngi wàññi prix yi mais commerçant yi wàññi wuñu woon prix yi kooku képp koo xam ni kii yaa ngi dem ci marché bi xam nga ne commerçant am ñoo xam ne dañoo bañoon wàññiwuñ prix yi man maa ngi fii ay vidéo yoo xam ne parce que lu may wax dama ci wut ay preuve pour ëllëg képp ku ku ku weddi li ma wax ma ñëw ma la mi ngi nii gars dem ci bitig yi dem fa ñi wàññiwuñ prix yi non seulement wàññiwuñ prix yi mais moom def na effort ne nañ wàññi prix mais ñoom tam waxoon nañ ne bu fekkee wàññi wuñ ci kaw bëgg leen a wàññi loo tam loolu day metti non wàññi woon nañ prix yi ministère du commerce service mi yi contrôle économique war nañuy dugg ci biir marché yi di xool prix yi nga xam ne wàññi nañ ko ñu imposer commerçant yi ñu respecté ko loolu mooy doxal réew benn beneen bi des gouvernement Sénégal na ko nit ñi félicité parce que ñun comme France ak yeneen pays européens ak États-Unis ak Afrique ñoo commencé fii nii di subir contexte mondial bii nga xam ne bi la affaire Ukraine bi ak ni économie mondiale bi di demee gars yi ku ci nekk fi ne nii dundal sa bopp nga jëkkatal d'abord parce que bu ngeen déggee exportation xam ngeen exportation mooy yow boo bayee dara da nga ciy lekk li nga ci bëgg satisfaire say besoin ba pare soo ko defee ba pare nag la ci ëpp nag moom ngay jël di ko exporter léegi nag bu fekkee ni yow léegi li ngay lekk doyatu la mais dootoo exporté ou bien boo ca dee exporté tam wóor na ni prix bi léegi dafa jafe fu ne da nga yokk prix yi te ñun comme Sénégal am na yu baree baree bare yoo xam ni léegi pour ñu lekk ko bitim réew lay jóge suñu industrie yi aussi nekk ñu fi di pour di transformer suñu produit yi pour que di créer ay plus-value di les régler suñu ay consommation locale am na yu bari yoo xam ni daf cee des importation moom lu ñuy dunde mais loolu ñuy importer rek bu dikkee état bi mënul continuer di ko subventionner il faut mu yokk réew nag boo ko yoree ba ay moment donné il faut que say population mën a def ay sacrifice comprendre que état bi yokk ou bien yenn yenn prix pour que ñu dépasser stade boobu mais soo ko deful ne état bi même bu affaire bi mi ngi dugg ci biir dëkk bi 60 eh, francs lay jar léegi ne ko état bi kon ne di ko jëm a jaay 50 francs xam nga ni loolu day subventionné de bu ko subventionné day tax ba yeneen secteurs yi ñu waroon def xaalis bi duñ ko fa mun a def mm. à des moments donnés ci histoire am bu yenn situation yi amee dafa war a def ay sacrifice les sénégalais nag le président nangu ñoo def sacrifice dañuy jël lépp teg ko ci état mais état bu population am jàppalewul jàppalewul dégluwu ko dimbaliwu ko ci nanguwul mu teg ko ci yoon boobu boobu boobu état du dem. du alors ñu jeexal ak politique législative yi léegi ñu yegg ci alors euh, yenn alliés yi commencé signalé wu di wax ne ñoom bëgg nañu am lu gën a duun que élection yi passé euh, locales yi tam am ñu jàpp ne xëy na la ñu leen joxoon euh, méngoowul ak la ñu yeyoo yenn base socialiste yi itam tàmbalee signalé wu ci législative yi naka nga jàpp ni noonu la président war a doxaleek alliés yëpp ba xëy na ngeen wéy di ànd booloo. woo bennoo jëm ci ci législative bi pour ngeen mën ci génn. élection yi moom euh, gars yi moom xam nga yi boobu contre benn bokk yaakaar ñoom ñooy def ay problème ci biir benn bokk yaakaar di wax mais gis nga benn bokk benn bokk yaakaar amuñu benn problème dinañ def seen investiture dem ci élection yi incha allah rabi ba pare gagné ko xam nga lu tax. Mm. coalition bu mel ni Benno Bokk Yaakaar mënta ñàkk ay ay ay wax ni ay ay ay xëccoo parce que Sénégal moom ñëpp bëgg nekk député ba ñëpp bëgg nekk ministre ñëpp bëgg nekk directeur tout le monde moom la bëgg mais le président Macky Sall dafa nekk nit koo xam yàlla may na ko euh, benn xel ak benn façon de gérer boo xam bi toujours daf ciy génn te yàlla na ko yàlla yàgg dimbali ci loolu parce que boo respecté nit ñi rek ñu mun waxante ak yow parce que ñu ñoo ngi nii barki démb lañ jógee fële fale euh, fa lañ toog fa lañ dogoo biñ ne foofu mu deful ñu waxtaan dogu fa wax ñu envoyé ay mission ñu dem dans tous les bi ñu dikkee 46 missions ñëw nañu mission ñëw nañu foofu ku si nekk jël parole wax la nga fekk ci gox yi fan lañ gañe lu tax ñu gañe fan lañ perte lu tax ñu perte mu déglu nit ñi xam nga di déglu nit ñi ku ci nekk ñu la cinq mille yi li ñu doon wax ëpp na dix mille parce que moo tax ñu toog foofu ba ay trois heures quatre heures du matin dégg nga ku ci nekk wax nga froidement la nga fekk ci gox yi doggu ci kenn respecté nit ñi jox kàddu nit ñi et li gën a neex ci mooy ambition ambiance yooyu bu ñu ko demee ak président ci fële mais ni muy ni muy ni muy wàccee boppam xam ni fii ay nawleem ñoo fi nekk muy kaf nii ree draaye fii fo ñu dellu soit amul montré ay gros dos bon je le président vous êtes des trucs parce que xam nañ ne ñun ñëpp ay responsable te loolu moo téye bennoo te loolu moo téye bennoo gis nga le respect qu'il a vis-à-vis des gens mënut a joxe ñëpp poste mhm. mais respect bi ak yëg bi mu yëg nit ñi foofu moo tax nit ñi kon ne di ànd ak moom te loolu ñu bëri xamuñu ko donc dina defar euh, liste yi fi ne nii on a envoyé ay fiches ay fiches lañu envoyé partout à tous les partis. Mhm. ne leen ñi bëgg a nekk candidat yëpp nañ joxe seen bulletin extrait de naissance casier judiciaire ak affaire jox leen ay fiche ne leen nañ ko déposé ji ci coordinateur yi nga xam ne bi ñoo ñëwoon ci département yi ak ñeneen ñi déposé ko ci siège bi buñ ko tegee foofu ñoom nag dañ xool profil yi suñu xoolee profil ci fil yi nag def euh, liste bi mhm. mais li ma mën a wax daal mooy très franchement ni ma gisee ñu liggéey ko nii mosuma ko ci gis dem ci terrain bi jël li nit ñi li leen naqar yi assemblée générale dellu soit jox ay fiches parti yëpp jot nañ ay fiches. ku ci nekk ku bëgg nekk député lañ wax. dafa lii dafa lii dafa lii ba ngeen pare fiches yi ngeen déposé ko au niveau du siège. bu ko defee foofu nag ñëpp duñ mën a nekk député. mais fa la ñuy xoolee profil yi tànn daal tànn. kon ça veut dire que y a un minimum de démocratie à ce niveau là maintenant. Mm. parce que on a demandé aux gens de président toogu rek toogal boppam rek ak. quelques groupes di bind rek di bind liste nationale non non non. danoo envoyé mission yi gars yi wax ñu ni ku bëgg a nekk député sans restriction ñëpp joxe seen kayit ku joxewul yow yaa bëggu yaa bëggu nekk boo joxee dañuy xool profil buñ la tànnul nga xam ni kat laajoon nañ la sa dossier mais ñëpp mun ñoo nekk ci liste bi mhm. donc man vraiment ñii yaakaar ne nag affaire bi dina dina dina dina yàqal benn bopp beneen bi ma ci bëggoon doolu Fatou mooy gis nga Sénégal yi nan tànn ñi ñuy yóbbu ci biir assemblée xam ñan la ñuy tànn mënoo bëgg assemblée bu baax ba pare di jël ay saagakat ak ay xasakat di leen envoyé assemblée loolu soo ko yóbbu bu demee foofu ay korpañ ak ay saaga li ñuy dóorante ci biir assemblée ba beneen bi doleeku nañ xam ni ñuy tànn parce que ñàkk a mën a tànn mooy tax lu leen di dal di leen di dal parce que gis nga élection locale yi ñu génn population yi li ñu doon xaar ci seen maire yi duñ ko gis hmm. parce que faluñu ay nit ay liste lañ fal hmm. dañoo wote bennoo wote ay coalition coalition boobu xanaa bala nga ko wootee nga xool ci am ñoo xam ne boo demee fi ne nii seen i quartier soo leen nee yow wax ma sa sa maire kan la. xamuñu ko xamuñu ko xamuñu nit ñi nekk ci liste bi. ba pare ñu nekk ci liste bi bokkuñ amuñu programme boo xam ne bii moom lañu tëggoon ba mu liyee leen. Mm. ñu ñu soog koo indi pour pour wan ko askan wi dégg nga. non non non danoo daf ñi woote naa contre naa Macky Sall rek. naa <laughs> wooteel ñële naa wooteel am na tam ñu nekk ci opposition bi ay maire euh, président Macky moom ma ngay continuer di leen ropat ñu bari ñu ngi ñëw di wutal si Benno yaakaaroon itam foofa ma ngay dundal transhumance. ropatul kenn. parce que képp képp koo xam ne da ñëw ne dama contre président Macky nga dem ba askan wi woteel la parce que danoo contre président Macky Sall nga jekki jekki. xëy dem wuyu ci président président Macky Sall xam nga ko ku nekk ci opposition radicale du la jël si mais bu fekkee yow yaa toog seet ku jege président bi nga ne ko man de bu ngeen ma wooyee ma ñëw <laughs> maa ngi koy toogal ah, yi ñëw bëgg a président ma président Macky Sall yor na majorité xam ne bi mën nañoo dem ñun par gagner élection yi te duñ fi nekk di dem di seet yi ay nit yoo xam ni danoo toogoon di dóori xeer ba ba ba gars yi jox leen commune yi mais nag le président de la république dafa ëppoon. il est le président de tous les sénégalais képp koo xam ne kii ñëw nga nangoo ñëw pour liggéey ak moom mais daf la war a jël. man je ne suis pas contre mais je dis bu gaa yi di transformer affaire yi di wax naan wooy benn bokk yaakaar ñoo daw di ma jël seeg dugg na fi gën benn bokk yaakaar ay une majorité ki gagne des élections mm. il faut qu'on le dise mais président de la république képp koo mun di doon ca nekk Sénégal moom mais rek nga bañ a nekk maire rek mm. képp koo xam ni kii nekk nga fi bëgg a dem bokk ci li muy def na la ubbil nga ñëw bokk ci mm. parce que li muy yor ñun ñëpp ñoo ko moom on n'est pas des burkinabé kon léegi ku ku ku xam am nga xam-xam mbaa am nga njariñ na la ubbil bunt bi nga ñëw bokk ci liggéey bi jàppale ko pour l'intérêt du Sénégal. jërëjëf monsieur le ministre Thierno Lo njiital APD nekk itam PCA bu SENTER ñu ngi lay gërëm amoon nañu te dalal la ci matinalu Rewmi FM. Fatou maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax di la féliciter ci liggéey bi nga xam ne da nga koy def di invité nit ñi pour que ñu ñëw di sottante xalaat ak yow. te itam da nga am benn côté boo xam ne ñëpp ko remarqué mooy say question dafa teggiinu te lii préoccupation askan wi moom ngay laajte ñu joxe la ci suñu xalaat yàlla nañu yàlla dimbali. ba suñu Sénégal gii ñu def loo xam ne lii dana faj euh, lépp loo xam ne lii nit ñi soxla nañ ko te mu musul nu ci violence mu parce jàmm ci la lépp xaj. te itam li fi nekk intérêt général moom la ñu war di dox parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mm-hmm. mën nañoo bañ a bokk ci bokk ay ay ay langue mais li nga xam ne bi moom moo ñu unir mooy Sénégal ñu fexe ba jàmm am ci réew bi fexe ba créer emploi pour que nit ku nekk nga boo yewoo nga mën a bég loolu daal man moom laay dox te itam loolu laa gis euh, président bi nekk ci ma di ko ci appuyer di ko ci jàppale aussi pour que Sénégal daal nekk réewum jàmm suñu pétrole bii ñu gis ak suñu gaz bii nga xam ne bi léegi monde bépp fi ne ni moom la ñuy wax gis nga bis bu ñu fi nekkee di fi xuloo ak di xeex tubaab yi dañuy jaxase ba pare ñëw fii bu ñuy xeex ñoom ñu tibb suñu gaz bi ak suñu pétrole bi kon képp ku bëgg réew mi jàmm nga fi war a dox fi mu ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité